salaamaaleykum mbokk internet internetu dakarnet.com comme ni ñu koy defee saa su nekk di dalal ndaanaane ak artistes yi yaakaar naa ne kër gi miin nañ ko kër gi fu ñëwee xel yëpp day dem ci soxna Aida mu sëriñ Saaw tey moom lañu dalal du ñu def lu jox kàddu yi mu niroog mbokk internet internetu dakarnet ak info réew mi mais ñu leen di di la ziar. salaamaaleykum salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum diaspora mais maa ngi nuy sama buntu ci Serigne Touba di Serigne Mountakha Bassir di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam waaye di ñaanal sama buntu ci Serigne Saliou di Serigne Cheikh moom Serigne Saliou yal na ko yàlla teel ay tànkam fu tarxiya nekk soxna ay daang lay ziar ak ku mu mënti doon ak fan si xarit yi soppe yi bëgg te dootuñu bañ ak site internet yi nag bàyyiwuma kenn su ma limee juum ndax ñëpp samay waay lañ télé ñëpp samay waay lañ soxna ay da àdduna la maa ngi ziar ñëpp Euh, soxna ay Aida àdduna la yow euh, yaa ko wax euh, macha allah nit ñi tamit wax ko sopp la loolu bëgg la ngir mën naa ni sa dëggu ak sa xër gi nga xamante ne xër nga ko ci Serigne Saliou tey nag dafa am loo xamante ne dañu bëgg ñu leeral ko du ñu jaax ci digg bi sax mais nit ñi xam nañ. mais yow foo ñu leeral parce que gis nañ ne yow indi nañ la fi benn plainte ba tax ay site internet yu bëri tamit ñu plainte leen yow yaa wuy ji woon mais bi nga wuy jee ba tey amuñu dara loo xamante ne nii leer nañu leer na nit ñi la nga fa jëlee xam ñu ci dara ñu bëggoon nga ñëw ci loolu. waa sant yàlla jullu ci Seydina Mouhamed sangu sang ñi te xam ni képp koo xam yaa ngi liggéey. Euh, soxna Aida plainte bi nga xam ne bis bu ko déggee mu yóbbu fitam mooy plainte bi nga xam ne day ñaan xaw ma sax fa lañ ko déggee aussi tamit mais njagam laaj ngeen ma ci dinaa ci tontu parce que plainte la mais bañoon bruit ak bañ réseau internet yi ak xam cofeel gi sénégalais yi am ci man moo taxoon ma wuy ji ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu waxtaane ko nag mu amuk cant lool parce que dara mettiwul parce que ci liggéey bi la bokk parce que liggéey loo sa nawle wala nga séq ak nit liggéey ba pelent juddu ci mu woo la nga wuy ji ko parce que xëy na li ñuy li ñuy wax ne daanaka li may wax nee na dafa méngoo ak moom ci wàllu liggéeyam te wax na dëgg nit kii lu na la neexale attan ah nga ko wax waaye soxna Aida nag soxna Aida àdduna la soxna Aida diaspora la sénégalais yee ko bëgg ci sama wàll bi may liggéey ak sama mbokkum sénégalais yi ak sama mbokku diaspora lu ma ci fekk rek man dama koy nangu ndax ñetti plainte yi laay bañ euh, dama trian ba dem police mbaa dama def lu ñaaw ba dem police mbaa ñi may liggéeyanteel dama jëppanteeg ñoom ba dem police te loolu dalu ma kon maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci say Seydina Mohamed te xam ne lépp rek ak cant la. demee lan nga jëlee. non sant rek kenn ku ne lii nit bugg ko bu ko ko defati non dootuma ko ko defati parce que xam na ne xëy na da cee gis boppam man du may tudd tur du may tooñ kenn waaye kantaak ak sénégalais ak soxna da Messi Messi moom Serigne Saliou toujours rek nay neex sant sëñ Touba bu wér toujours rek nay neex dañuy vidéo di def lu neex sénégalais yi bëgg ko te loolu laa leen miinal waaw gaynde gi doomu jinne ji mi ngi comme ça comme dab rek. waaw muy neex. mais dafa mel ni euh, plainte bi bi mu jógee am na ñu bari ñoo xamante ne jógoon nañ di la neex ci loolu. waaw parce que ñi ko yëg ñëpp nag wax dëgg yàlla man yëgaluma leen ko parce que bëgguma teg sama nit coono bëgguma teg ñi ma bëgg coono te it ci sama wàllu liggéey rek la ma fekk nag ci vidéo yi may defal sénégalais yi ba ñu kontaan ci vidéo yi may tëgg ci vidéo yi ba mu neex la Sénégal la nit gis boppam ne lii neexu ko ci vidéo yi ndax daf ciy gis boppam. ñu daal di koy nag mais du ñu tey liggéey dañuy liggéey comme comme d'habitude ba mu neex réseau internet tamit képp koo xam da nga may filmer rek wala nga xamante ni danga may génne jaratul ngay montage sama photo ak photo Abdoulaye Diop Khass parce que dem nañu dem nañu wuy ji am na loo xam ne nee na neexu ko te nit lu ko neexul doo ko ko def waaw moom nee na bëggatul gis photoom ñu koy montage ci internet ci ay kàddu parce que nit moom bu la yóbboo ci yoon am nga droit tudd turam ndax guleet maa ngi doog a tudd turam léegi nag dem naa ba ñëw ci jàmm ak salaam nee na photo yi bëggul ñu koy montage ak turam dootul am barki sëñ Saaliw jeex na ñun ay taalibe sëñ Bàmba lañ man sama photo boo ko montage ak sëñ mu neex soo ko montage ak sëriñ mu neex te moo may gënal sant rek waaw